est-ce que promoteurs yi ñoo ngi lay woo di la démarcher. waaw moom boobu ak léegi maa ngi toog sama ruq di entraîner promoteurs ngi may woo comprendre nga may wax ay adversaire mais tamit peut-être adversaire yi ñoo nangoogul waaw mais ñun moom ñu ngi suñu ruq ñu ngi entraîner bu baax a baax a baax. lii waa adversaire yi bi dag yow yaa bëggul wala ñu problème mu kese la wala. waaw peut-être ñoom kese la ci ñoom ah, mais man moom boo ma fayee fii dërëm sax damay bëre parce que man sama staff moo demee noonu avance bu dugg du génnaat comprendre du du du génnaar parce que bari na gis naa fi ay interview yoo xam ne nii xam nga ay gay naa ko ñu ngi wër ci presse bi di wax lu ne laaj wax nañ ma ko mais nag man moom damaa mënewul wax man moom jëf laa gën a mën a yàq nañ la ko lañ la la wax loo xamante ni tax na yaa ngi ciy prête attention waaw non bàyyiwuma que xam nga wax ju ñaaw moom da nga koy fëlteel rek mu jàll waaw mais bu dee wax ju rafet la mën nañ koo segg jël li ci baax lépp kii ko mais wax ju ñaaw moom du ma ci bëgg di delluwaat mais li l'essentiel bi mooy ku ci wax lu ñaaw après day ay conséquences wax ju ñaaw dafa mel ni wax ji xaw na la touché tuuti lan la la wax. waaw ah non xam rek ay wax yoo xam ne bu mënuma cee dellu parce que ci ci ci kii laa nekk. Ah non mais waxal parce que wax ju ñaaw la doo entraîné da nga koo ñemewul wala. waaw ah non xam rek ay booyu ndey parce que man tey ji damay sant yàlla xam nga lu tax may sant yàlla. gaynaa ko moom mi toog di wax moom ba may bëri sama premier combat moo bëri grand combat bi. comprendre nga kon moom aw ma loo xam ni dama ko koy wax moom dafa bokk ci sama yoon rek dama ko war dama war a jaar jàll ci kawam rek. waaw moo tax nga pour jël ko. moo tax pare naa pour bëreeg moom comme que moo ngi war di wax bu ñëwee ma ma bëreeg moom. bu dul moom. bu dul moom bari naa ay adversaire ay Nokia jox na leen fi sama avance ñu bañ. ay Nokia USA 2 na ñëw ñu bëre. Tafa Tafa Boy Bambara na ñëw ñu bëre. pare naa pour bëreeg ñoom. Mhm. mais Mama yaa sax bu ñëwee ñu bëre. Mama yaa am na combat am na kaa doole la jël. bu ci paree ñoom ñaar ku ci pare bëgg naa la. pourquoi pas Ndandi pare naa pour bëreeg moom bu bu bu Ndandi Fall ñemee Ndandi Fall a ragal. damaa soxor de. barki maam jaara damaa soxor. mu bëri amatul lu ma leen di négocier wala nii ak nii ak nii dama leen defal bu cur billaay wallaay amul yooyu de. léegi su ma génnee ci loolu ma ñëw ci seen combat bi nga xamante nii fi mu toll ni bëri na coow muy diggante Modou Lo ak ki nga xamante ni mooy Ama Baldé soo ma doo ñëw ci combat boobu loo may wax. waaw combat boobu aw ma lu ma ciy wax parce que xamal tax aw ma ma ciy ci benn côté. ñëpp xam nañ ne Ama Baldé sama sama papa sama xarit la suma lépp la. dama koy ñaanal ndam mais nag damay wax Modou Lo lenn ni ko am na problème. yow am wax ak Modou Lo. waaw Ama Baldé amul lu muy wax ak Modou Lo que ñoom ñu ngi def seen i sorties wax lu nekk. ñoom ñan. waa parcelle. Modou Lo moo la gën a xam ni Ama Baldé du moromam. nañ baay wax ji. nañ bàyyi wax ji. boobu de liggéey nekk ci ruxam di entraîné. mais ñan ñooy wax nañ baay wax ci ñan ñooy wax. Sakho moom dèjà bu ñu defee conférence de presse bi ngi wax affaire euh, combat am ñu def ko ay huis clos combat nan la mën a nekk huis clos comprendre nga. nan la mën a nekkee huis clos dèjà beneen bi. arène nationale bi fa ne Pikine ñun dañ naan jugee Pikine di génn di bëreeg ñoom di di ñëw parcelle Ama Baldé fan la mujjee bëreeg Papa Sow Papa Sow ñëw nañ fa bëreeg ñoom daan leen comprendre nga. kon moom mais nga wax woo Modou waaw waaw duñ benn comprendre nga PL ak M mais nag <laughs> A baa ngi ñëw ndax AB jiitu marque am jaara AB jiitu de te ku mu xajalul doo jàll. fan nga teg ne Ama Baldé du ma Modou loo te Ama Baldé dëkk Modou Lô ba yàlla dogal tey ñoom ñaar seen combat mais xam nga am na mbër yu nekk ci suuf yoo xam ne buñ jàppee mbër ci kaw duñ doy. peut-être borom mooy dogal rek. ah loolu yaa ko xam mais man gisuma. waaw gisagoo loolu mais sunu borom mooy dogal peut-être ñun euh, Ama Baldé liggéey na tey jii ba yegg si fi Modou loo yegg. comprendre nga te ñoom ñaar ñoo war a laale te incha allah Modou Lo mënuñoo tere jël roi des arènes. mais est ce li nga jege Ama Baldé gis ko moo tax nga yaakaar ne mais Modou Lo mu ngi cay entraînement. Modou Lo du mbër Modou Lo tànku yooyu. lan mooy tànku meeram booju meeram yooyu noonu biir bi kenn xamul lan la mu ko di wax na bàyyi kuréel ñun xam nañ lépp. kurus kurus kurus yi muy kurus ko ndam nay nelaw ba doyal di tëdd toog ba 3 heures du matin 4 heures du matin di kurus ñun xam nañ lépp yow laa waxal Modou Lo. Modou Lo moo yor bi di kurus. ñun xam nañ ñun ñuy wax bu baax. ñun xam nañ mais li ngay wax foo ko teg dañ leen koo dee wala da wax ni pour neexal. Modou Lo la mu daan def di dem ci gars yi ñu koy butéel bi nii butéel bi ne ñun ñoo ko gën a doon ay ceddo fuuf barki maam Diarra ñoo ko. ngeen ko bëgg a wékk ci mystique fi mu toll nii. non non Modou Lo bu dee xale ñoo ko gën a nekk xale bu dee kattan ñoo ko ko ëpp bu dee fit ñoo ko ëpp bu dee bëri ñoo ko daax kon amuñu lu ñuy ragal ci moom te laakaar naa galaaj mboq rek la te ëpp ñu ay mboq comprendre nga waaw. dañuy bëggee waale waa Touba gépp di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall Mbor di ko ñaanal yàlla guddal fanam comprendre nga di sant ñëpp. Hmm. soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. waaw bu ma amee kàddu yu mujj ah damay santaat yàlla bu baax di santaat sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall Mbawar di ko ñaanal gudd fan di ñaanal euh, suñ mun Muntaxa Mbàkke ak kilifa aada yëpp yu réew mi di leen ñaanal bu baax di sant sama papa Zil Bale comprendre nga di ñaanal yàlla Ama Bale am ndam Moussène am ndam Boña am moom it am ndam. gépp di ñaanal borom place bi Mati Mbuub xam ak ñi fi nekkal astu maam jaara comprendre nga di leen bëgg bu baax ak jigéenam ju baax cee. comprendre nga di sant ñëpp daal di sant sama staff sama fan club ma waa marché zang comprendre ak centre Batora bi Sougou Mouhamed Sougou ñu ngi koy siyaar bu wér di leen bëggee yéen it waa wasaare ah di leen siyaar di bëggee waale suñu gannaaw boobu maam Thierno xam nga di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp am nañ contentement contentement bu baax la de guerre bàyyil wax wax bu baaxul Modou Lo tu as sérieux problème. gis ngeen ni lay demee ci wasaare làmb Adama maa ngi lay bëggee bu baax a baax. di jox dig daje. sama sama doomu nday waaw Lamine damaa bëgg nga jëlal ma ko sama doomu ndey la sama gaan la bul daw <laughs> waa moom moo koy béggee bu baax ak magama ah, Ndeye Gueye borom Italie mu ngi koy siyaar bu wër di béggee ñëpp waaw borom place bi di leen béggee bu wër ak waa Batora bi yëpp di la béggee di la kontaanee bu wër. kontaan naa ci yow baax baax Adama di la jox dig daje ba beneen yoon jaajëf.